kii nii yéen euh, naka ngeen koy bu ngeen ko doon natt en fait benn échelle un sur dix euh, naka ngeen koy jàppee. mais exactement ça ça a à quatre-vingt-dix-neuf pour cent. kon kon. analyser la seen seen xool. jéem xool ba place la prochaine fois lii du du am. Mhm. beneen bi mooy sur euh, li nga wax économiquement. vraiment dina mhm. nekk yor plus de deux mille véhicules. di di di chaque véhicule minimum di déplacer cinq cent personnes par jour bu am en faisant le compte di nga xam ne gis ni muy joxe donc am na économiquement am na ay pertes clientèle aussi ñu ngi leen di jéggalu ci euh, comment dirais li nga xam ne xew na tey di leen xamal ne incha allah on va faire de notre maximum ba ba léegi lii du am. c'est une de trois jours maanaam tey benn fan rek la tey jii nii euh, ndax waxtaan yi entamé ngeen ko pour éviter xëy na wala dissuader leen ñu mën commencé woon nañ ko depuis samedi. moi j'étais pas là j'étais en voyage mais hmm. depuis samedi commencé woon nañu di waxtaan ak ñoom ak ak les études mais incha je pense qu'on va trouver un terrain d'entente incha allah ah. oui lu tax lu tax nga jàpp loolu parce que gars yi on les a eu aujourd'hui mais apparemment fi ñu campoon ba tey jug juguguñ fa waaw mais l'essentiel que il il faut ils font une demande demande kay bu ñu ko satisfaire luy des dem liggéey yi tuuti mhm. Euh, euh, comment dire la grève est une revendication. oui maanaam da nga am looy demander. bien sûr loolu ngay demander bu ñu la ko joxee lu des dem liggéey soo ko deful y a une démission. je pense que du egg foofu donc moo tax ma ne li tax ma ne dina jeex mooy on va satisfaire leur demande et c'est une parce que c'est une demande légitime loolu laa wax moom je le répète encore une fois. Uh-huh. te incha allah bu loolu amee liggéey rek moo des. les différentes parties se sont retrouvées pare woon nañ ci depuis très longtemps le processus a été enclenché que ne ay contrat de yu bon en bonne et due forme dañu leen ko defal. Mhm. am na ñu ko def mais am na ñu des. Mhm. ñi des nag ñoo ñooy laaj seen yos incha allah dañu jot. léegi pour la journée de demain lan la mën a yaakaar parce que aussi c'est important nit ñi tey yaa ngi koy wax ah, ñu bëri souffrir nañ ci li nga xam ne mooy manque de transport bi euh, pour demain qu'est-ce qui va se passer. ce amaguñu loo xam ne lu luñ mën a teg hmm. taabal ji la wax leen pare na jeex na parce que c'est une décision entre deux parties des décisions deux parties koy def te ñun li ñu pare li ñu pare pour def ko mooy satisfaire totalement leur leur revendication mais ñoom ci de leur côté toogu toogaate gu ñoom te loolu la xaar hmm. te incha bu ñu toogee ñoom je pense dinañ satisfaction totale de leur